alxames fukki fan ak juróom ñeent ci weeru novembre 2020 la coopérative fédérative bu acteur horticulture yu Sénégal doon amal li nga xam ne moo di lancement officiel benn forum bi nga xam ne ñëpp ñu yëngu ci wàllum horticulture ñoo fa doon daje bile société coopérative nag dafa nekk benn uti bi nga xam ne tey jii day permettre li nga xam ne moo di euh, gouvernance économie euh, mu nekk li nga xam ne mooy sujet bi au cœur débat ñi amal ci wàllu économie ñeel wàllum horticulture. waaw jërëjëf euh, coopérative Sénégal yàggoon na fi waaye bi mu fi yàggee dafa demoon ba presque kenn ñimetu koo tudd mu mel ni dañu wax ni jumtukaay bu àndul ak yoon bu normalul bu baaxul la alors que jumtukaay du bon du baax loolu laa wax léegi jumtukaay ki koy jël di ko saytu moo koy bonal wala mu baaxal ko te société coopérative nag ñun moom lañu ñu doon mais dañu xam ni Sénégal du ci inventé waat dara lépp am na fépp ci adduna te warul nañu fu bëri ñi nekkoon ci salle bi tey ñu ci bëri ñii dem nañu France ñii dem nañu Italie ñii dem nañu Espagne ñii dem nañu Pologne ñii dem nañu fu nekk dem nañu ba Iran dem nañu fu nekk États-Unis fu nekk mais le monde adduna bi secteur primaire muy agriculture muy élevage muy pêche ay société coopérative ñoo koy doxal société coopérative nag li sax Sénégal mu am jafe-jafe mooy Sénégal dañuy wax ni dañoo bokk solidarité li ñuy wax solidarité xam nu mu koy waxee ci ci ci ci wolof ñun daal dañoo yaatal nooy bokk lépp waaye suñu mbokk gi dafa yem ci fekk fuy ay kuy añ rek foo dugg mën nga añ mën nga naan attaaya waaye bu dee liggéey nag ku ne da nga a aw sa yoon te loolu nag coopérative melul noonu coopérative boo ci bokkee fa ngay jëlee say jumtukaay waaye boo ñoralee fa nga koy delloo mu jaay ko moo koy saytu pour yow parce que moom wutul bénéfice bu muy yóbbu ci fenn wala fu may denc ci fenn di ko ful wala nangam lu mu am daf koy delloowaat ci ñi ko séqal te loolu nag ñun jàpp nañu ni mooy yoon wi mooy yoon wi parce que yeneen yoon yi yàgg nañ ci mais yoon wi ñu mën a jaar pour euh, pour saytu koom-koomu euh, secteur primaire muy agriculture au sens large mooy coopérative ñun loolu la ñu gëm waaw euh, ci def ci tàmbali bi dina laaj ndimbalu état ak yeneen partenaire pour wàllu alal mais dama wax ni ñun wër nañu ay coopérative dans le monde yoo xam bi ñu demee ba taxaw bu ñuy présenté dañu yàkkamti woon mu jeex pour ñu laaj ko foo jëlee alal bi bi ñu paree ñun ñëm ñu jëkkante tàllal suñu loxo même question bi la ñu amoon mu ni kenn lebalul kenn jàppalewuñu système bi mooy financé boppam ndax yow foofu kenn dootul fixé prix fii ni xew fii nga ni dangay def campagne production ba pare ngeen toogaat nag di doog a fixer campagne commercialisation loolu amul ci coopérative yi dans le moon ba nga laay produire la ñu xam yow la kan ñaata nga yor ci tool yi ngay produire ñaata espace nga am bu ko defee boo bayee ba pare da ngay ñëw déposé sa coopérative parce que ña fay liggéey yaa leen di fay say employé la ñu mënuñu dem fenn bu ñu jaayee yow la ñu jaayal bu ko defee ñu delloo la ko ci ak niñ la ko jaayale loolu bu mooy financer boppam bu ëllëgee jorul demoo ci banque demoo ci feneen mais ci tàmbali bi dina laaj soutien parce que tàmbali bi coopérative yi xëy na amaguñu doole jël personnel technique bi leen di encadrer état bee koy def wala kose gay jàppale fii jàppale fee mais bu ñu demee ba liggéey am am nekk ci yoon ñoom ñooy dimbal seen bopp loolu tax ñun ñu gëm ni nañu euh, décret bi am parce que loi OHADA 2011 la ñu ko signé ñun toog nañu deux mille 2011 ba mille mille 2016 ñu doog a am décret 2016 noo ngi 2020 ñu ngi wax ci préparer pour l'application ñun nag foofu la ñuy woote ñu ne nañu loolu nag dafa war a jox taxaw nag léegi ñu def les les modalités d'application de ce décret là pour que tey jii 2011 ba deux mille 2016 ba deux 2020 ñi ñu fi créé société coopérative yëpp ñu ngi seen dossier yaa ngi ci gouvernance yeeg su préfet yi di xaar. parce que amatul registre bu njëkk boo paree ministre bi mooy def arrêté jox la nga am comme ñun ñu yàgg ñi mais ñeneen ñi ñëpp mënuñu am arrêté boo buggee ubbi compte ci banque sax doo ko mën a am donc loolu mooy urgence bi loo tax ñun ñu waxtaan fii pour di alerter pour ni nañ tegu nag ci yoon wi dafa jot ñu tegu ci raay bi nag pour nekk ay vraie société coopérative ma dénkaane nag ni nanoonu danoo waroon ñun ñu ñëpp nu waat tey ni dina dinañu fexe ba buñ fi jógee duñu xëyaat tasewaat naan coopérative baaxul loolu daal laa doon invité nit ñi ñu def. li leen ndaje ñu doon ko amal tey si suba tax na ba ñëpp ñu yëngu ci wàllum horticulture ak li nga xam ne moo di économie ñeel wàllu woowee ñëwoon nañ ngir waxtaan ci li nga xam ne moo mën a jëmalee mbir mi kanam donc ki nga xam ne moo di président bi nee na moom ubbeeku na ci lépp li nga xam ne moo di waxtaan ñeel wàllum développement bi le